oui euh, d'emblée d'abord je dois dire que ni euh, suñu duggee dans le dans la profondeur de la rhétorique ah mm par rapport ak li nga xam moo di interprétation euh, liée à la formulation d'une phrase ta phrase nañ lañ koy tabaxee mun naa mun na mun nga toll si benn niveau d'interrogation boo xam ne en réalité l'approche peut être affirmative mhm. waxuma nag aji bu du ko def mhm. Aïcha viendras-tu à la maison n'est-ce pas c'est-à-dire soo xoolee bu baax c'est comme si en fait j'affirmais que tu allais venir à la maison. dafa am benn euh, dans la dénotation comme dans la connotation dafa am noo koy appréhender mais boo liiree bu baax li nga xam ne Cheikh Hadjibou Soumaré bind na ko. Mhm. en réalité jàngat naa ko jën naa ko xool tëbb naa ko tibbi ko. xool naa ba xool mais en fait je ne vois que des interpellations en réalité maanaam di laajte. Mhm. te defe naa ni niveau du débat public ak fi mu toll jamono yi euh, Sénégal. defe naa ni nous voulons des interpellations et quelques que soit la nature des interpellations par rapport à des discours teintés de violence par rapport à des discours teintés d'invectives par rapport à des discours yoo xam ne amaan na day andi xaajaloo si wàllu waasoo si wàllu xeet ak leneen ak leneen te débat bi Cheikh Hadjibou Soumaré dafa bokk si li nga xam ne ça peut rehausser le niveau du débat public et le niveau du débat politique parce que laaj ñu tontu la dafa neex boo laajtee kël nga interpellé tontu la andi la ay firnde wax la li am dëggantaan amaana yow da nga laajte kon boo ka tontu la mu wax la ñuy gëm. ku mu neex nag ne man li mu wax ma bugg naa mu gën a dolli. defe naa nag créer débat boobu ak euh, dugg ci débat yooyu moo gën a neex mais comment peut-on dans ce pays-là encore une fois nga poser question ñu daal di lay interpeller. placé la en garde à vue si koo xam ne quoi qu'on puisse dire il est citoyen sénégalais c'est un justiciable comme vous et nous comme comme comme comme keneen ak keneen mais n'oublions pas qu'Hadjibou Soumaré est un grand commis de Euh, euh, du point de vue du comportement euh, nit la koo xam ne en tout cas on est posé il est il est pondéré il est pondéré mosoo ko dégg mu yëkkati kàddu gu ñaaw mosoo ko dégg si xaste si xuloo si xeexoo si xiiroo si ŋaayoo pour la première fois nga dégg Adjib Soumaré ñu koy tudd si loo xam ne amaana dafa am wàll ak police ak li nga xamoon di yoon il a été ministre délégué chargé du budget il a été premier ministre du Sénégal il a été président de la commission de l'union économique monétaire ouest africaine donc nit la koo xam ne il a servi servi sa nation. def naa nag sur la base de laajte ñu joxe encore une fois l' impression de vouloir à ma à mon avis intimider au delà d' intimider jéem a nu ñu koy waxee. des na tuuti kenn du xotti woor ma xotti woor ma euh, euh, nit ki mais jàpp naa nag président Macky Sall wàllu boppam. bi ko Cheikh Hadjibou Soumaré laajte te ñoom ñaar ñu bokkoon. nguur si Abdoulaye Wade parce que bi muy nekk président assemblée Hadjibou Soumaré moo nekk premier ministre. def naa ni nag jamono jooju mu ne samay service jox naa leen ndigal ngeen tontul ma. sama ministre porte parole du gouvernement tontul kii nga xam ne moo di ancien premier ministre bi. andil ko ay firnde bul fàtte une chose euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez sous le magistère du président Abdoulaye Wade les leaders de la de la coalition Benno Siggil Sénégal ils avaient saisi l'autorité mm. euh, ne ko da nga war a euh, def li nga xam ne moo di blocage président Abdoulaye Wade pour mu pour mu bàyyi euh, bopp réew mi. pour quoi parce qu'il est frappé de sénilité. maanaam dafa. nu ñu koy waxee dafa. dafa naax dafa naax. imagine toi loolu moo gën ci garaaw. Mm-hmm. te pourtant dara fekku leen si. su am mm-hmm. son temps c'est Pape mm-hmm. moo indi ay réponses. ba nga xam ne sax nit yi dañoo wax ni Pape Diop lu mu tontu neexul mais. c'était à la hauteur justement la provocation bul fàttaliku euh, Aïcha combien de fois nga dégg ñuy way baayu jàmbur maamu jàmbur kilifu jàmbur góor gi dee na te moo gën a garaaw ba pare yoore cercueil di ko doxandoo si mbedd moo gën a ti garaaw est-ce qu'il est arrivé quelque chose à cela tu le disais ñaatu yoon nga dégg euh, ñu lay ñu lay ñu wax la leneen loo xam ne moo gën a ci moo gën a ci doy waar si si Abdoulaye Wade te def naa loolu amul quel quoi qu'il en soit ah je dis encore une fois nous devons nous respecter certes et donner véritablement respect bi war njiitu réew mi ak institution yi mais encore une fois des interpellations Pape Malick peuvent aider à rehausser le niveau du débat